jëf sar juróom benn ca bés yooyu naka taalibe yi di gën a bari yawut yi làkk grek tàmbalee ñaxtu ci mbirum yawut tigi yi te lii ko waral jigéen ñi seen jëkkër de te ñu bokk ci ñoom naraalewuñu leen ca ndimbal lañuy séddale bés bu nekk noonu fukki ndaw ya ak ñaar woo mbooloom taalibe ya ne leen nu bàyyi kàddu yàlla di toppatoo mbirum seddale loolu jëkkul ci ñun kon nag mbokk yi tànn leen juróom ñaari nit ci seen biir ñu am seede su rafet te fees ak xel mu sell mi ak sago nu dénk leen liggéey bii waaye nun dinanu wéy ci ñaan ci yàlla ak ci yenub xamle kàddu gi lii ñu wax nag neex na mbooloo mépp noonu ñu tànn Étienne di nit ku fees ak ngëm ak xel mu sell mi boole ci Filip ak Prokoor teg ca Nikanoor timon parmenas ak nikola mi juddoo antiyos te tuub ci yoonu yawut ya ñu jébbal ndaw ya ñaanal leen teg leen loxo noonu kàddug yàlla di law ba mboolem taalibe yi di yokk bu bare ci yerusalem te saraxalekat yu bare déggal yàlla ci topp yoonu ngëm wi naka noonu Étienne mi fees ak yiw ak kàttan di def ay kéemaan yu mag ak ay firnde ci nit ña waaye ay nit jóg bokk ca jàng bu ñuy wax jàngub ni ñu goreel di ay nit yi dëkki sireen ak aleksandri ak it waa diiwaanu silisi ak asi ñuy werante ak etiyen waaye àtte nuñu sagoom ak xel mi muy waxe kon ñu daldi jënd ay nit ñu ne dégg nañu ko muy sosal musaa ak yàlla noonu ñu jógloo nit ñi ak njiit yi ak xutbakat yi ñu dal ci kawam jàpp ko yóbbu ko ca kuréelu àttekat ya te ñu sàkk ay naafeq yuy seede ne kii du bàyyee wax lu juuyoo ak barab bu sell ba ak yoonu musa ndaxte dégg nañu muy wax ne yéesu nasaret moomu dina daaneel barab bii te soppi aada yi nu musaa batale woon bi ñu ko waxee ña toogoon ñépp ca mbooloo ma xool ko jàkk gis xar kanamam mu mel ni xar kanamu malaaka